na la jiitu woon kon ñàkk ngëm-ngëm googi ak ñaare wax yi moo tax ma ne leen ay bëgg dund kese la seen amir bi ñoo dëkk tëli bi rek moo ñu tàqale tëli bii nii moo tax moo ma tàqale moom fii la jàng kër sëñ abi bu mbàkkee gii ba jàng li ñuy jàng ci réew mi mën a way ba mu demee bayit ya mu bindoon way ko waa jaama islaam yee ca lañ ko jële léegi maanaam mu nekk foofu di jàng ba tey jii mu nekk seen amir As Jaxate mi nga xam ne moo ko doon jàngal bokk na maak ak moom benn bis ñu yenn mu ne man de diw jaaxal na ma ma ne ko ci naka mu ne ma man de damay joxum tabaski di ma jox di jox di ma jox lépp kañ kañ ka ma toogaloon da koo def ngir ragal la rek waaye gëmu man sa jum man si am naa firnde yu leer nit enquêtal na ma ba dem ci magam ji nga xam ne mooy seen xalifa baay kooka ne ko man de diw jaaxal na ma na ko gàmmu gi moo ko fi yeew ab abu loola cay boole bu ñëwee day foq mbaxanaam sànni dàllam fële wa isa xalawi ila shayatinihim xaalu inna maakum 2012 événement Mali yi bi mu amee waa di convoqué nañ ko di ko enquête mu ne man taaliba si Ahmadou Bamba laa ay nit daje nañ ak ñoom ci xalifa yi ñuy génn addiya di foq mbaxana di siyaare te mooy seen amir bi nga xam ne nee na taqdiisul axdaas asfaas taqdiisul asfaas sama digganteeg moom mi ngi ni tëli rek moo dox suñu diggante dama koo xam-xam bu wér a ni ma leen xam këram jabaram xam naa ko akum xaj ak i oto moo fa ne li may wax laa mu tuuma ko lu leer naññe la bokk koñ waaw jabaram ak ak ak i doom ak aku xaj ñoo fa nekk sama rakk ji ma bokkal ndey ak bàyyi daara ji mu ne moo këram nii lañ def dañoo jàkkaarloo fii ci gannaaw tëli bi rek ci sumb gi bu la ngir lu gën a précisé yow xam làmbatuuma ko de làmbatuuma ko dama ko xam baax a baax kon kookii nag nga xam ne te it am na ñeneen ñoo xam dañ koy fekk ci këram muy waxtaan ñoom waxtaanu saahir ak léegi waxtaanu baatin waxtaanu saahir bu ma laajee xale boobu bi ma doon defal enquête bi daf ne ma bu ma bu ma ko fekkee moom doogu ci këram kenn nekku fa raxul su ma ko sujjatalee day nangu ñuy waxtaanee ci ci turux yi waaye su gaa yi raxee maanaam ñi nga xam ne ñoo ko def amir mu daal di commencé insalaxa minal la ca des kon loolu rek foofu la ñu bëggoon a kii ci li sëñ Ababacar wax nga xam ne kon at loolu nañ ci bàyyi xel beneen song bi nga xam ne moo ñu ñu koy song it te sëñ Moustapha Kaay junj ci mooy siyaaratul xubóor yi siyaaratul xubóor